ne ko bis ni ki tey boo ma nee ma toog fii Tiwaawan hmm. fi laay toog ba yàlla moom ma hmm. daf ko naan wér ngeen ma <laughs> daf ko naan wér daf ko naan wér <laughs> hmm. waaw waaw bisimilah maam Abdou Aziz ngay teg ay ba <laughs> moo bindaloon waaw kase neuf bi nii loolu rek laa oh. comprendre ma tekki ci àdduna beneen bi uh-huh. sama sëriñ sa uh-huh. sa soppe uh-huh. sama bàyyi sëriñ Babacar Sy Abdou ko nettali moom la dal dafa am benn waaye bu fekk góor gi ca Tiwaawan bisu àjjuma Alaaji Abdou ngi toog mu tiim góor lu ne mu waxu tàllal joxoñ ko baaraam nangam nangam nangam di xas parce que sëñ Baye na mu bëgg a jug dal ci kawam góor gi téye ma li ma boo koy tontu ma génne la njaboot Cheikh Hadj Malick bàyyi ko góor gi wax wax wax wax ba ngéex dem yoonam. ci maam Abdou di ko wax lu ko neex. Cheikh Batal Hamd. kul bu zaman. possible. waaye yàlla. kii boo fekkoon na ko koy war a. <laughs> yàlla mën wax ak moom wax ba géex alaayam ni bàyyi ko mu wax <laughs> ba guddi jot mu woo sëriñ bay Abdou bi fekke woon jotaay bi ak paptal chauffeur am ni ko àndil leen ma oto bi ndeke oto bi yàpp na ci ci maal bi ay ceeb diwlin xeetu teranga yëpp <laughs> te boobu bët yaa ngi muuru waaye muy guide chauffeur bi <laughs> te boobu bët yaa ngi muuru mi ngi muuru jàddal fi jàdd jàdd waxul leen fu mu jëm mu jékki-jékki oto bi gaare kon bi Abdou nee na man noyyi ndeke mooy këru sii di góor gi ñëwoon di xas Alaaji Abdu ci suba gi. wallaahu akbar. góor gi ñëw mu ni Pape Sëriñ Bay Abdou yaay sama doom yow la ma yàlla sédd ci deret su ma amoon kàttan maay wàcceel sama bopp teraange wàcce ko nee na mu wàcce wàcce wàcce wàcce. nee na ba ñu ñëwee mu ñëw ba ci te moom mag kooku mën na ko jur sukk ni ko jéggal ma. ndeke kooku dafa amoon réeroo ak frère mu ciy dox. ni ko baal ma jéggal ma. kooku nuyoo ko catu loxo waaye terewul def na li mu war a def nee na ba duggee ci oto bi Pape Sëñ du Abdou ne sama xel maa ngi naan góor gi daal jëfam gi jaaxal na ma nee na mu mel ni daf koy tontu seex baaraam bi ndax dara am seex baaraam bi di jàng aaya ba wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa allazina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xaddin azim yàlla mu ni balaa ngay am cër ci yàlla dëgg nga bañ a xàmme ki la bëgg ak ki la bañ <laughs> maam Abdou fa la rawee ñëpp moo tax daam na wax moom Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh su ma tëddoon ba guddi nit fëgg ma ma ubbi bu may ma un milliard ba ci ëllëg sa ma tëddaat ba guddi nit fëgg ma ma ubbi mu dóor ma ba damm sama bëñ bu ma narul yemale ki ma may un milliard démb ak ki ma dóor ba damm sama bëñ ci cofeel yàlla bu ma gis yonent bi yawmal qiyaam allahu akbar ñoom ñaar la yemale wasawi alal ghina wal faqra fiika wa man lii nag naa ci bég ndax xam nga kan moo ko way lii déedéet Serigne Mansour bal xaw mi wéy juru xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour maam Alaaji Mansour mhm. fii dafa magam bu magam mhm. dafa def wasiya mhm. avant muy dem dénk ko alxaaj Abdoulaye Sy Dabakh maanaam lii mooy portrait dëgg Cheikh alxaaj Abdoulaye Sy Dabakh bàyyi Alaaji Mansour way ko rakkam soppim Cheikh alxaaj Abdoulaye Sy Dabakh loo wax Abdal Aziz airni alqalba usika cey bàyyi Alaaji Mansour wasiyatan anka tashfi kulla ma fika wasiyatan anka tashfi kulla ma fika Abdal Aziz yaa Abdal Aziz mu asafiyaa ul munaada bi moo tax ñu nasab ko ci kaw yow Abdul Aziz xam nga maam Abdou Pape Sidi mhm. dafa maanaam turam dafa tënk dundam parce que Abdul Aziz mooy jaamu yàlla mhm. al aziz yàlla turam bokk na ci aziz mhm. abdul aziz mooy yow jaami yàlla ji mhm. abdul mooy jaam aziz mooy yàlla aziz mooy yàlla ah, jaamu yàlla mi ngoog moo tax maam abdu ni mhm. ñaanoon naa yàlla ba nekk jaam te yàlla nangul na ma ko moo tax sëriñ Mansour borom daara yi bu mu génnee àdduna dafa ni sangu jaam yi dem na ndax moo nekkoon seen serviteur ndax yonent dafa ni sayyidul qawmi qaadimuhum maanaam sangu nit ñi mooy ki nekk seen surga ki nekk jaamu nit ñi mhm. mooy seen sang moo tax sëriñ Mansour ba mu koy ba mu koy way dafa ni laqad xaaba an na dinaa ci ñëw mhm. saydul qawmi xaadimu radina bi qadrillahi wallahu xaakimu faqadnaahu cheyqan kaamilan wa murabbiyan wa xaadarana bil amsi walqadbu daahimu léegi nag moom alaaj moon su ni ko Abdul Aziz yow yow Cheikh Alxaaji Abdul Aziz da baax sama rak mhm. aarnil qalba abal ma sa xol uusi kaa ma dénk la wasiyatan dénkaane yoo xam ne tash day saafara kulla ma fii kaa lépp luy tere nit mu àgg ci yàlla abal ma sa ma dénk la fii sa zamani alladi amma alfasadu yaa ngi ci jamono joo xam ne amma matale ne alfasadu mbon bihi ci jamono jooju wala tara ahadan fihi saafika mama laaj ni ko kaa mi dénk ndax wala tara doo gis ahadan kenn fii ka ci yow yu saafi kaa kuy sellal jëme ci yow dégg nga de maanaam nee na ko eh, Pape Sidi mm-hmm. lii ñëpp mën nañ ci gis seen bopp mm-hmm. Pape Sidi ñaata nit nga defal nga tey mm-hmm. ñu fay la safaan bari na voilà léegi nag yàllaa lay nattu gis nga ñooñu boo amee jikkoy wan leen ginnaaw doo àgg ci yàlla nattuk suñu boroom la Pape Sëñ Bay Abdou nee na képp koo gis mu yor paanu kaani nee na bu ko laaj foo jëm nee ko mi ngi koy xëpp ka ko defal teraanga tey ci suba. dëgg la de. foofu la àdduna bi toll. allahu akbar. <laughs> wala tara ahadan fihi yusaafika nee na Pape Sidi doo gis kenn ko ànd ak yow te yàllay kese kese foog foog intérêt am ci. léegi maam Abdou ni ko waaw maa laaj moom suuf bu fekkee maa ngi jëm ci jamono joo xam ni nit ñi bu ñuy ànd ak man intérêt tax du yàlla kese waa nu may def ma wan leen ginnaaw mi ni ko déedéet. Faxudda. Faxudda tarfaka laa tafxas axi abadan. Faxudda na nga sajj tarfaka sab xef wala tafxas bul gëstu axi yow sama mbokk abadan faw mooy lan Pape Sidi koo gëstu gis loo lu la teree ànd ak moom. Mm-hmm. waaye muñee ko. <laughs> wax nga lu am solo koo gëstu gis lu la teree ànd ak moom Faxudda uh-huh. nag am na ci. Mm-hmm. mooy maam da nga daan ñëw toog ak moom mu jàpp mu gis sa lépp. Mm-hmm. waaye du la wax dara. dama la ciy jox benn misaal. Mhm. moo tax nitu yàlla yi doy sama sëriñ bi Pape Sëñ bi Abdou xam naa ci moom lu bëree bëri. waaw damay koy bañ wax ci télé. mais mhm. yàlla may na leen loo xam ne dañ naan la jàkk xam loo fanaane. Mhm. maam Abdou si da baax dafa am ku ñëw ci moom. fekk daf ko yónni woon. lii Pape Serigne Mbaye si Mansour Al moo ko nettali. en 2003. gàmmu zawiya Cheikh El Hadji bi bi amoon Dakar. Pape Serigne Mbaye si Mansour Al nee na waa ji dafa ñëw ci maam Abdou fekk maam Abdou yónni ko mu xaw a yàgg nee na mu ñëw ni ko Sidé baal ma yoon bee xawoon xat mi ni ko déedéet dafa am foo jaaroon naan fa léwal mu ni ko ba nga fa naanee léwal nga ni kooku na ngeen ma teel sama deuxième maa ngi ñëw dellu naan sa deuxième ba pare te mi ngi toog fi mu toog <laughs> mu ni leen xola xoola mu teg si di yëg leen ni képp ku ma njaboote lu mu nekk maa koy gis dafa mel ne écran mu ne nag écran bi bu demee ba fulu mooy kooku mu ngi ci safaan mi ngi mooy yàlla te man duma gis mooy yàlla dafa dafa dafa dafa di programme mu télé te nit ñi dañuy dañuy maa ngi dégg maa ngi dégg dindi loolu dindi loolu maa ngi koy dégg ngi dégg maa ngi dañuy dañuy waaj a jeexal mais dafa am loo xam ne mm-hmm. Mm-hmm. dafa am ci léegi réew mi mm-hmm. te maam Abdou daf cee joué woon rôle bu am solo te dafa mel ne dañ ciy dellu ginnaaw. léegi ngay gis ay xale yu ñàkk yar. nekk ci internet bi. TikTok wala Facebook di saagante. kii di mu boo murit kii di mu boo ndax bu nekkee murit bu xam murit doo saaga tiijaan boo nekkee tiijaan bu xam tiijaan doo saaga murit kii laayeen kii xaadir kii nangam. maam Abdou joué ci rôle bu extraordinaire bañ ko doon wax le fédérateur. Mm-hmm. da doon toog ba mu yàgg mu war a dem Gambie mu jaal mu jaar Medina Baye. Mm-hmm. dikk. fekk ñuy julli jumaam ñu ne ko kaay jiite mu bañ ne moom day topp si ginnaaw imam bi ndax war ma gu mu amoon ak fédérateur gu mu doon ñawee diggante këri diine yi mm-hmm. Mm-hmm. tey lees ci mën a fàttaliku pour ñu yëkkati jotaay bi balaa muy jax comme sax bu ko defee sañ góor a wayal ñu balaa ñuy terminer waaw loolu moom ci diggante ma këri diine yi li mu ci liggéeyoon te mu rafet waaw effectivement li ci liggéeyoon te mu rafet daam na wax sëriñ Babacar Si Abdou sama sëriñ mm-hmm. ni ko boo dematee di waxtaan benn nekk jullit ñi misaal ko ci ceeb ceeb boo demee marché jigéen ñi xëy tey ñëpp dem marché. Mhm. ba ñu demee jëndi ceeb dañu ba ñu ba ñu demee dañ ñu jaay ma ceeb ceeb tànk mi ngi ci marché bi ceeb lay tudd ñëpp ceeb la ñuy wax. Mhm. mais jigéen ñi bu ñu ko duggee dellu seen kër mu soppi tur. Mhm. kii euh, def ci ceebu jën kii maafe ci kii domadaa ci kon tant que ñu ngi ci pinc bi nañu wax li ñu li ñu bokk ñun ñëpp Cheikh Ahmed Tidiane Chérif suñu sëriñ bu ñu lalaan malaanu wasifa bu ñu ko waxee ni waxtaanal ñu fi asrari tariqati tijaniya daraan def istiaara mooy métaphore day wax hël fi sama riibun wala ruyum <coughs> ndax asamaan si xiinul mooy ndax ñu ni neen rek a fi ne parce que am na ci loo xam ni mën naa ko wax ci mbóotu tariqa bi nit bokk ci mu weddi ko kon nañu waxtaanee li ñëpp bokk misaal bi rek di gën a gàtt mooy diggante ak Touba. noonu la meloon nag la way na ko. kuy wax ni Touba ak Tiwaawan. ñaari dawla lanu. fii dawlatin te warul. wallaahi kooku xamul nee na kuy wax ni Touba ak Tiwaawan ñaari état lañ. pour wan ni kat ñoom ñi ngi fi daal dañuy féewaloo ku ci nekk yor sa pouvoir. mu ni kooku xamul. na ngeen ko wax yéen ñi xam mu noppi moo di lëgën mhm. mu xam ni fadlal ali moom ca loxoom la newul mhm. na wax ba dee loolu muy bañ yàlla def na ko jee ndax yàlla def na la muy def qabla zu ca azal mhm. ñii seen daw la jiitu na tey loo bañ bañit du fi jóg waxal ba xottiku yaa malcuunu yaa xëttu xol yow doo jullit doo ku xam loo fi doon ba di wax soo bàyyiwul lii nga ne yàllaay ki lay toroxal tuubaak tiwaawan ñaseen jaamalak canaba kazaaka laayeen wa njaasaan fu mu ci rek teralal donc mat na dem na Touba julli ci ginnaaw sëñ Abdou Khadre mhm. ni tey kat ajjuma bi yëpp ñëpp daje nañ fi balaa jant di so ñëpp dinañ wax ni alxaaji Abdoulaye Si Dabba xalif généralu Tijaani dem na kër baayam Cheikhul Qadim julli na fa moo li xaamal sëñ sëñ Abdou Khadre mhm. donc loolu pour man nañ ci bàyyi xel ndaw ñi ku ci ne jàppal la nga jàpp fonk sa sëriñ mhm. waaye du tere la ci alaajab du doxoon mhm. fa tabaarakallaahu ñu fexe ba ku ci am cofeel ci moom looy wax ci nitu yàlla na doon lu baax. c'est que bi bi li ci gën a graaw mooy Oustaz Diabel ndaw ñi. Mm-hmm. li maam Aziz bind léegi dafa mm-hmm. graaw mooy. Mm-hmm. bi ngeen di juddu yéen ñëpp fi ngeen fekk Tiwaawan fi ngeen fekk. Touba Touba di ngeen dellu yàgg bàyyi fi Tiwaawan ak Touba. ñuy continuer di exister. effectivement donc ci diggante bu ndaw bi ngeen fiy nekk. moo xam 60 ans wala 70 ans yi ngeen fi nekk yu ndaw yooyu. jëm leen cee rafet te bañ cee jëlee ay bakkaar. ndax wax ci lu ñaaw. li muy indi ci ay bakkaar yi leen di topp Mm-hmm. aw yiw yi ngeen mës a am dañ koy konteel ñeneen ñi dëgg la Gora sant naa la gërëm naa la balaa ñuy jeexal dañ ko ci euh, très rapidement jeex na déggoo déggoo sooba léegi ñu ngi tëgg alaaj taal ngol ngol mu ngi ñuy xaar waxtu wi daf ñoo coincé euh, Lamine bëggoon rek mu bàqal moom moom Abdou waaw dina lu ko defal buy termine <laughs> dina la ko defal buy terminé g acteur dafa ma yónni g g acteur dafa ma yónni mu ne dev business mm-hmm. nekk Sénélec bu Médina moo ko war a jox téléphone ba tey moom moo tax mënut a ñëw liggéey si g vrai tapalekat la <laughs> téléphone moo tax mënut a ñëw liggéey si <laughs> mais ñu ngi gërëm bu baax tey sant madame Ndiaye di euh, suñu yaay di suñu xarit nekk directrice su 2STV nekk nit koo xam ne elle est formidable sur à sur tous les plans tey la anniversaire am di sopp soppe maam Abdoul Aziz Dabakh ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire yaay guddal fan amal euh, amal jàmm euh, nous on t'aime et tu le sais très très bien on te souhaite plein